artistes yëpp en tant que soppe sax dañuy ñëw hmm. même bu leen jóogu woowul directement ñoom ñëpp ko ci nekk maa gis seen ay message ak ak ak seen ay encouragement ñoom ñoom ko quoi doom juddu sët juddu ba màgg am jëkkër amaat doom amaat jëkkër mm-hmm. incroyable mm-hmm. donc man je comprends pas euh, président de la république comme li ñu wax ñu ngi lay ñaan njekk ci wàllum kër yeeg location yi na moo tax léegi ku nekk ci sa kër bu tuuti da ciy préféré toog muñ ba keroog boobu yàlla di la may loo moomal sa bopp te boo seetee ñu bëri ñu ngi génn léegi Dakar. Mhm. di dem vers Mbao vers Mbao mhm. vers Rufisque yooyu sax demal nga xool parce que yooyu lee avant ñu ngi ko doon gis ay appartement yoo xam ne cherul mais foofu sax ñoom ñu ngi commencé di plaindre parce que yokk nañ seen loxo. Mhm. xam nañ ne waa Dakar ñu ngi ñëw foofu di jël ay appartement te ñoom ñeme nañu fay prix parce que prix yi ñu leen di proposé Dakar dafa cher. donc du coup ñun xamuñu ñun fan nañu jëm dañuy ñaan la rek police beeg politique beeg yooyu yëpp ñu gën ñu dimbali. ci mm. wàllum location yi parce que tey. Mm. na fi ku dem di clamer di tribunal pour huissier di nga topp procédure boo xamul. Mm. di nga dugg ci loo xamante ni ça va vraiment te prendre du temps. que nga am bralon que nga ñàkk am bralon. ça va du temps parce que fii lay nekk. ñoom dañuy béy seen waar ci liggéey bi du ñu jël këyit di ko profito dañuy jël seen temps xoolaat ko xool ko bu baax balaa ñu ciy réagir de loolu ça va prendre du temps parce que justice moo demee noonu mm-hmm. donc il faut ñoom tamit ñu beral président bi beral ñu loxo ci côté boobu ndax man gis naa ne président rek moo ci moo ci fi mu ne nii moo ci mën dara moom rek a ci mën dara parce que trop maa ngi déglu à rajo benn propriétaire boo xam ne nee na moom ciment wam ba mu koy jënd ak béton wam ak fer am kenn dimbaliw ko ci donc il va pas du tout diminuer moom li ñuy joxe mm-hmm. donc te quatre mois quatrième mois bi mu ngi bëgg doy waar parce que dañ lay wax cinq cent mille francs baa ñu ne la huit cent ba pare laaj la quatre mois léegi yow da ngay fay quatre mois may ñu la un répit de deux mois ni un répit de trois mois da ngay fay quatre mois fay trois mois teewul weer bi day dee nga fayaat mm-hmm. metti na c'est incroyable euh, doy na waar Marie maa ngi lay dégg nga naan bâtiment yi du dëgër. Ah, ah bâtiment yi du dëgër ah, parce que da ngay romb tey doo gis mu pare suba nga romb fekk mu pare nga romb laajte ñu ne la 1 million 200. am ah, keroog ki ma àndaloon bi ñu ko waxee 1 million 200 dafa taf gémminam. tas gémminam. Mm-hmm. amiin dafa tas gémminam loolu mënul nga gis ko am ba pare seen studio yi am na studio yoo xam ni dem na day dem ba trois cent mille. si trois cent cinquante. waaw am na studio yu dem ba trois cent trois cent cinquante. man dama naan peut-être. dafa am ay ay parties yoo xam ne dafa am ah. yoo xam ne <laughs> da koy am ci kër gi moo tax ñu defal la ko prix boobu parce que di nga si gagné. autant sax ñu ne la c'est déjà meublé. loué à un million ou à cinq cent mille par mois parce que dañ fa fekk meuble génn bàyyiwaat ko fa. vide lañ lay wax vide maison vide usage habitation c'est c'est incroyable. un laaj la mais nag gars yi dañuy faral euh, lan moo tax ñuy def ay un million deux cent affaire parce que zone bi muy nekkee tamit loolu tamit da hmm. Hmm. parce que boo ñëwee foofu xam nga ku ne xam na ni zone boo xamante ne nii mm. presque zone bu bu sécurisée la bu bu luxe et tout mm. wala nga dem ba biir Almadies tamit am na zone yu mel mm. noonu xam naa loolu tax tamit ñuy yokk seen location yi waaye tamit ay un million ba un million huit cent loolu vraiment na trop VDN bi rek huit cent lañ lay wax demal Ouest Foire ay 400 500 lañ lay wax je te promets te te te genre quartier quartier moo daan gën a moins Euh, ci li nga xamante ne moom moo di loyer bi wala bidonville et cetera mais léegi da ngay gis même dans la banlieue par exemple boo demee ay Kër Massar on te propose des appartements de trois cent quatre cent mille boo demee Rufisque noonu boo demee feneen noonu nga ñëw ci ville bi mu gën t ti cher finalement tu te demandes où que tu vas même habiter oh, peut pour subvenir à tes parce que nag